li xew ci réew mi nag wax dëgg yàlla nit ñëpp war nañ ci bàyyi xel parce que dafa am loo xamante ne dafa am avant élection war nañu tiit ci loole te war nañ ci xalaat bu baax a baax bu fekkente ne ñii dañu ne dañoo ger ñenn ci waa conseil constitutionnel waa conseil constitutionnel ne kenn geru leen muy problème ñeneen ñi ne dafa am ñoo xamante ne waroon nañu nekk candidat waroon nañu jàll waroon nañu valider seen candidature te valider wuñu seen candidature am ñoo xamante ne dañoo valider seen candidature ba pare ñu doog a rendre compte ne y problème ku mel ne euh, Rose Wardini di candidate boo xamante ne dafa jàlloon ba pare ñu doog rendre compte ne effectivement y problème donc loolu yëpp bu xewee coow li commencé ne cours avant élection cela veut dire que même bu ñu demee élection coow li day continuer coow loo xamante ne poste électoral lay doon après élection te loolu wax dëgg yàlla soxla wuñ ko ci suñu réew dañ bëgg ñoŋal lépp avant que ñuy dem élection parce que nag président Macky moom la ñu jiital moom la peuple sénégalais jox réew mi bu rendee compte ne am na loo xam ne c'est des irrégularités am na loo xam ne doxul am na loo xamante ne fi mu jëm baaxul il faudrait que mu siffler la fin de la récréation reporté wul benn élection te ci li mu nekkoon démb bañ a def beneen mandat ci la nekk ba léegi moom li mu mën a def mooy abroger décret bi nga xamante ne moo woowoon li nga xamante ne mooy euh, collège électoral le scrutin moom moo bindoon bataaxal bind décret woote pour que élection mën a am bu demee nag ba rendre compte ne effectivement y problème day jëlaat beneen décret abrogé li nga xamante ne mooy décret bi mu defoon donc loolu moo fi am loolu nag wax dëgg yàlla gisuñu ci lu dul nit koo xamante ne ku jara félicité la parce que suñu réew dafa am nit ñu xamee jàmm ak salaam président Macky Sall nag bi mu ñëwee ba léegi ci bopp réew mi bankul loxoom da ko tàllal ñépp pour ñu dialoguer pour que ñun dem ci ay concertation concertation nag dialogue nag nekkul rek dialogue national mais commencé na fi walla def na fi ay dialogue yu bare bari damay xalaat dialogue bu mel ne concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur ak yeneen secteur yu bare bari président dajale na acteur yépp ñu bokk taabal ji waxtaan ngir li jëmale suñu réew kanam am na loo xamante ne tamit wax dëgg yàlla opposants yi ñoo ko wax ku mel ne le premier ministre Abdoul mbay dafa ne le fait que déjà ñu abroger le décret convoquant la corps électoral loolu lu baax la pour que ñu mën a dem dialogue waxtaanee réew mi ñu bokkul woon mën a bokk ñi nga xamante ne demoon nañ ba valiser seen candidature te waruñoo bokk ñu bañ a bokk ñun ñëpp ñu ànd waxtaanee réew mi loolu je pense que ñun ñi nga xamante ne euh, ñoo fi nekkal président de la république politiquement parlant dañ ko ci jàppale lépp lu mu sumb xam nañ ne lu baax ci réew mi la parce que nag wax dëgg yàlla président de la république euh, lebalul sénégalais yi lu dul lu baax réew mii boo gisee xam ne li fi jot a am ci liggéey les réalisations que le président de la république a faites dans ce pays kenn du ko miim personne donc leneen li aussi président dafa bëgg dem dem boo xamante ne dana wàcc ci ginnaawam jàmm ju mot sëkk jàmm ju doy sëkk looloo tax nag ñu taxaw tey ne ñëpp nañu wuyu ji dialogue ba ñu waxtaanee réew mi fexe jàpp ay élection euh, ci beneen date boo xamante ne ñëpp a ciy déglu déggoo parce que nag loi nekkul lenn lu dul lu nit ñi déggoo donc ñoo ngi woo ndaw ñëpp ñu laxasaayu euh, nekk ci ginnaaw président de la république servir ko de bouclier jàppale ko bu baax servir que de ceinture de feu et de sécurité pour que mu mën a eggali ci jàmm ci liggéey bi nga xamante ne su mënoo ko ci mim réew mais également mu mën a mën a bàyyi réew mi ci jàmm ak salaam donc lii daal moo nekkoon li ma bëggoon a wax ci ci kàllaamay kocc di jox kàddu gi si samay ñoñ ñi fi nekk pour que ñu complété ma par rapport a ce que je viens de dire j'ai à ma droite